asalaamaaleykum Gambia ñu ngi leen a dalal si Ballot Power Show bi man maa leen fi nekkal Tijane Ba ah show bii nii nag Ballot Power Show moom ah, li ko tax a jóg mooy wax affaire yi constitution bi réeréewul mbir ne constitution bi amoon na fan yoo xam ne fii nii yóbbu nañ ko si ah, néegi député yi waaye gis nañ ne dañ ko reject maanaam gars yi nangut mu dem mm-hmm. léegi nag wax ji bari na te lu bari xew na ah, taay yii nii. so loolu lañ ñëw nag pour toog waxtaan pour xam naka la def léegi nag am nañ fi ndaw tey ah, ndaw ki nga xam ne moom dafa sawar waaw te moom tam si mbir yi mu fa ah, moom tam mu ngi def lu mun waaw moom nag mooy Amadou John Amadou John ndawi Banjul la nit koo xam ne nit ku sawar nit koo xam ne moom tam mu ngi béy waaram waaw amadu ah, léegi ñu Amadou léegi gis nañ ne euh, constitutional review commission bi mooy mooy commission buñ buñ sasoon ñu isil ñu euh, suñ constitution bu ñu war a yóbbu ci kanam because léeg-léeg woon mbir ne 2016 eh, amoon na change fii nii euh, change bi nag bu mu ñëwoon ñit yi am nañu yaakaar ni Gambia dina change lu fi lu fi amoon du fi amaat waaw ndaw ñi ñëpp génn nañ vote ñëpp ñu ngi participate waaye gis nañ ne recently Euh, constitution bi yóbbu nañ ko si néegi député yi ah, am na li fa xew loolu nañ fi waxtaan so yow yow nit koo xam ne la yow tam danga nga yaa ngi si yi maanaam yow tam tooguloo yaa ngi yaa ngi si jàppa gis nañ sa liggéey Banjul fii nii so léegi ñun dañ bëggoon a xam yow lan nga foog si liggéey CRC bi um, yow naka nga gisee seen liggéey bi ok ah, asalaamaaleykum maa di la jaajëfal ci invite bala ma invite pour ma ñu waxtaanee affaire yi draft constitution bi euh, I mean like ñu delluwaat back 2016 euh, euh, changes dafa amoon Gambia ñëw de ñu ne xaaral bi are fed up and tired sona nañ léegi ñu seet naka la defee changes then ñu yëpp ñu new nekka benn nekka si benn kaddu amee benn kaddu amee benn jubluwaay then ñu am changes si changes bobu non tamit nangatoo bi because of uh, collision bi ñom dafa amone ay material au marchandise bu ñu ñu gay doon jaay si jaay bobu non noonu tuddoon nañ ci dañ gestu ah yela fi ñu fi doon xew ko ñu di gay yi doon noot xam nga di leen toroxal ak yooyu noonu boobu benn la ci ñu ñëwaat ñu ne dinañ enquête lo xamne ko koppari rew mi fu mu duga di di di sa xam lu leer bobu tam benen euh marchandise bu gay jaay nit di jënd ko Eh, ñetteel bi constitution bi because ku nekk mun na yuuxu constitution bi dafa bon constitution bi dafa bon constitution bi benn nit la den ñetteel yooyu noonu mooy kii yoo xam ne coalition bi ñëw na jaay ko askan ñu tam ñu jënd ko ñu eh, changes am eh, bu gars yi setopee seen commission bi jaane commission mu dem den ñu ñëw si CRC bi CRC bi xanaa Gambian bi amuñ dara lu ñu wax gars de xanaa ñu wax leen kàcce ngaalama soo gisee ma loolu man as youth activist involved in eh, activism eh, time bi CRC bi amee di gars yi di def seen consultation bi ñun as young people or youth organisation jógoon nañu tamit ñu béy suñu waar ñu def coalition of CSO boo xam ne consultation of the draft constitution bi la doon nekk seen issue document bi ñu tam boobu lañ doon wóor eh, ñu Banjul fii nii constituency bu nekk dajale nañ fa 200 Banjul North Banjul Central Banjul South fu nekk ñu am ñaar téeméeri ndaw ñu dajale leen ku nekk nga indi xalaat xalaat yooyu noonu yëpp ñu seega ko ñu boolante ko ñu valider ko defar lu ñëw wax youth position pipa bu jëlee boobu noonu ñu dem tenda ko ci CRC am gars yi nga welcome gars yi jël ko teg ko fa lu bari lay si waxtaan loo xam ne nangu toone ne daanaka soo amee ñaar téeméeri xaleel si gox bu nekka nga am juróom benn téeméeri halal te dafa mel ni ndeyu ñu bari gis nañ seen boppa so ñun disappointment lañ am buñ déggee ne draft constitution bi dem na si national assembly bi so ñu nak bari nak ci néegi député do loolu mëna a because they don't understand issues because so soo kan, fekkee nit ki nga ne wa nit nga xol ko rek nga ne ko kan, ya ma nekk ay nga falu o oh, parti bi identify because ñi tam ñun ndaw yi trayoon nañ pour ñu am ay ndaw yu dugga ci néegi député yi luñ oyé oyee not too young to hmm. eh ta li fi nut léetul bo léegi pour ndaw bi buna na bokk si jongante am ay ndaw yo xamna ne won woon ne at least juróom ci ñom ñoo qualify ñu dem ci national assembly waye am nañ bettute so gisé mo wax lolu moy euh Gambian bi euh benn suñ dé tànn duñ dee xol ndax ki su démé dinañu fa represent ko da dafa nekkal ba mu am because soo gisee CRC bi euh setom nañ la waye dañ leen undermine bu yaaka su soo suñu reflecté ba da nga dégg time bobu non bu gaay do wax regarding this bala eh, xaalis bi sa président bi mu na jox gaay brown envelope sa yéno bala bobu sa moto yi ñoo ñëkke first place bi président bi jóg xam handed li ñëw jox leen moto soo moto yooyu noonu boobu noonu boobu moo war a nekk cause of alarm o firnde ne wane ne am na lu ñëw ëllëg because ñun Gambia ñu ngi bindoo noo xam ne tey su ma la defalee joxee dalasi rek nga ne ah déba de moom a joxoon dalasi si lu mu bëgg xaar ma jàppale ko soo culture yooyu nañu war a change danaa gis ne ñoom dañ foog ne président ba jënd moto bi even démba sa waxaat na ko moto yi opposition lo campagne moom mako jël ak suma xaliss mo amul xaliss moom right now xaliss bu mu am rek nit ya ko moom because taxpayers money la deg eh, député yi def nañu len eh. né waye activiste yi ñu ah, ba youth parliament bind nañ a letter to president ñu won ko national yu parliament organisation bu ma bilam to bind nañ président bi won ko ne eh. yow lutax explain to the young people of the Gambia why di defollow avec di constitution so still na amaguñu respond I still we are waiting So la baye hel di ko gis social media si ana letter bi social media yi wane president explain to the young people why did they eh, throw away the eh, eh, constitution so gisee ñu tamit buñ dara dañ bëgg xaar ñu dégg tontu ci president bi den suñ amee tontu ci president bi tontu nañu positive ou negative dañ ñu soga attaque national assembly ci for them to explain because of duñ leen bàyyee non because so leen ko rek it will be too cheap da nga mel dafa melni ni Gambia dafa delluwaat fu mu ko saw so xoolee bi dafa mel Gambia is going back fu ñu jógee fu ñu jógee xam nga Gambia ñaanatu pour mu dem fa so ñoom lu lu gaay def man suma gis-gis dafa mel understand eh, the, book or they don't read it because Gambian bi du read because of uh, su gaay doon su gaay jàngoon book bi oo ñu ko ñu understand so understand sax nga laajte then waaw waaw Mr eh, John wax nga fi loo xam ne solo wax nga ne ndaw ñi ñoom tam ñu ngi def euh, luñ mun pour gis ne affaire si dina dem dina dox because soo seetee réew mii nii Gambie fii nii ndaw yaa fi gën a bari so man loolu kontaan naa si te xam naa ku ñu déglu fii nii dégg ne ndaw yi ñoom tam ñu ngi bokk si process bi ñoom tam ñu ngi try pour xool naka la affaire bi di demee loolu lu am solo la waaye léegi ma laajte la euh, ndaw ñi foog nga ne apart from lii nii lan lañ mun a mun a def pour gën a bokk si affaire si because gis nañ ne draft bi nii dafa ñëw fii nii sax pour dimbale ndaw ñi because amoon na clauses yoo xam ne comme youth representation you know dimbale na youth representation si clauses yooyu noonu ne even political political party bu nekka di nga mun a am ten percent téeméer bu nekka fukki nit dañoo nekk ndaw soo yow lan nga foog si loolu noonu. ok ah, comme nu ma la ko rek dafa mel ni ñoom. Eh, jëluñ bug bi ñu xoolaat ko suñ jëloon ko constitution bi xoolaat ko te ñu am eh, nit yi ñu eh, ñu saxal la because of like man mun nga màttal na wan ma ne waa dama fi nekkal suma gox ñaar mu ñëw may instead of man ñëw toonaat suma bopp ma nekkal fa suma boppa rek like su gars yi xooloo ne like ah, lu gars yi di oote parce que seen campagne bi yëpp ñu dinañ dimbale jigéen dinañ dimbale ndaw loolu moo woon seen wuy so da nga gis ne su gars yi riidoon constitution bi carefully then at the end of the day du ñu throw away this because eh, like ah, young people we are trying to advocate at least um, am eh, ten percent or mm -hmm. si represent eh, represent or oh, every decision making process from the political parties up to the government administration waaye da ngaa gis comme lu ma ko waxee rek we are di dairy di book so loolu mooy di question of the of the day oo oh, su ko gars yi di dee ndax understand nañ ko. waaw ok léegi loolu daf maa yóbbu si si beneen laajte bu ma la hmm. bugg a ndax yow yaa ngi fii Banjul yow xam naa ne xam nga mais bi xam nga MP yi ñi fi nekk ñëpp eh, ndax MP yi ñoom balaa ñuy dem di vote hmm, ndax ñëw nañ si ndaw ñi pour ñoom tam ñu déglu gaay because comme nuñ ko waxee ndaw ñoo fi gën a bari kaa ba fii ndax yow si sa gis-gis ndax ñi ñi nga xam ne ñooñu leen fal pour ñu nekk foofu ndax ñëw nañ si ñun pour wax ñu ñun lii lañ bëgg a def yéen lan leen si foog ah, xam nga nekk MP boobu eh, problème bi boppam la. fal nañ la nga falu ba pare ndax ñëwaat si nit yi mooy problème bi. ñoom dañ foog ne ne suñ faloo rek like soo amee dëj oo soo amee ngénte time boobu la gars yi war a ñëwaat si ji salaamaaleykum maaleykum salaam balaa leen ma damaa dem non loolu du liggéey bi like lii bu amee constitution bi bu ko gars yóbbee si first reading bi ñoom ñëpp ñoom ñetta yëpp Banjul Central Banjul North Banjul South ku nekk da nga war a oo sa constituency surtout mu ndaw yi nga toog waxtaana leen waxtaana ñu ah lii de lañ xalaat so hol bu bi yeb sa so hol ko season bi nga dem ci posol bo xamne pour ndawi pour jigen nga leen mané li de li la gay indi pour yeen lolay ci ko ci wété bi c'est ñoko té ñepp andi suñu amé two third or three third of the population ñom ñu ñew ñu né la ah ñu dé d'accord nañ ci allahumma salli su gay waxé d'accord nañ ci tam nga dem way way nga dem all of them most of them na di fa passé bi yeb dañ jëm ci ligue négui député di finalité di wane ñom di have consulted kon ci constituency lolou xamné amul fête kenn demul ci kenn dem console ko da ngaa dem toog rek gars yi di cële xanaa unless Banjul Sall moom kooku absent noon na si time bi ko gars yi doon debate waaye for central and north daa di present waaye man yëguma fen foo xam ne gars yi oo nañ ndaw yi ñu ne leen kaale ñu toog ñu waxtaanee affaire yi constitution bi nii amul fenn waaye da ngaa gis ne su gars yi defoon consultation problème yëpp du la si doon fekka te euh, MPC surtout ma ndawi MP fa nekka daanaka ndaw yàlla fa teg waaye gaay def nañ lu def ba pare waaye adi dina leen hunt mm-hmm. it will hunt them because of like uh, people are aware because you still now ñu ngi fàttali lii ne draft constitution bi am na njëriñ bu bari bu si nekk su amee ay yu bon benn ñaar ñett rek la fa nekk yooyu la ñu war a doon seet gestuwaat ko ko fa ñu continuer ñu am suñu taat république waaye still now ñu si second republic and 97 constitution bu gars di wax ne dafa bon dafa bon bu bon boobu noonu moo nekk ñu fi bu président bi ak ñu mu àndal waaw so da nga gisee ñoom lu gars yi doon oote time campagne bi dañ doon try pour play cards on us ñu ne waa sànni la ñu fal leen sànni la fal leen ne gars yi falu de léegi nekkal lañ fa seen boppa ñu ñoo nekka di sonna so fu mu nekka nii lu ma appel muy bépp ndaw ñu ñëwaat gerto di drawing board ñu toog analyse mbir bi ñu seet what next waaw so um, ma laajte la tam uh, uh, Amadou so yow lan nga foog uh, xam naa ne yow yaa ngi yaa ngi follow affaires yi um, comme draft constitution bi eh, bu ñu yóbbu si si si député yi am na provisions yoo xam ne pour ndaw yi lañ su yow ndax loolu doy na la loo gis si draft constitution wala comme su la doyut yow lan nga foog ne lañ mun a yokk foofu noonu nga gis because eh, man yaakaar naa ne any eh, parliamentarian ku fa nekk suñ la votalee xamal ni ndaw yaa gën a vote because ñun ñoo ëppa waaw ndaw yi ñoo ëppa so yow lan nga foog ne liñ waroon a yokka foofu noonu o oh, ndax yow lii lu nekk si draft bi na doy na la yow ok ah, comme ñu gars yi waxee ne constitution mun na satisfy ñëpp waaye at least fifty percent of di mun na la satisfy te su nekkee ne fifty percent boobu noonu eh, njëriñ bi mu ëppal lum mu see lore kon nit yi war nañoo d'accord si loolu ah, like ah, comme nu ma ko waxee si doori bi rek ñun Eh, bu draft bi ñëwee day sippile suñu paat day si gis suñu boppa ñun ndaw yi gis na suñu boppa parce que comme nu ma la ko waxee si door bi dajalee ñaar téeméeri nit central note sal fu nekk ñaar téeméer dafa mel ni ndaw gis nañ seen boppa ba issu nañ seen youth position paper boo xam ne dañ ko validé ñu dem jox ko si arsi boobu ndaw ni gis nañ seen boppa su loolu waree nekk si book bi ñu wane ne waa ah, ndaw yi de play nañ seen part ba gars yi because at least 65 yëpp 65 percent of the youth president paper yëpp ñëw na si eh, di new draft constitution so waaye soo ñëwee nga génnee loolu yëpp dafa mel ni yow den yow eh, ndaw yi xam nga soxaluñ la so da nga gis man man su ma boppam jëmma ah, clause boobu noonu bëgg a rek doy na ndaw yi xanaa leena rek laay gars yi nañ comme eh, at bi comme because of ñu wàllu ñëw try to say was like at this the president age bi mu start from 35 mu end at 60 or 65 ñun loolu lañu advocate waaye da nga gis ne presidential age bi boobu amatul limite and it start from uh, I think 40 because of ñu ne waaw saa waaye borom dafa war a am adult mind oh. waaye young person bi mun nga am age of 18 ngay vote waaye at the, at the same age of 18 tam mun nañ la taawal nga nekk president even waaye dañu wax ne xaleel mënut a amee réew waaye one thing la bëgg people understand Uh, for example, come when Jame was young, he came to power. When he was young, he was doing things, great things. But after yeah. the mid age of adult age, 35 plus, that's the time he started, uh huh? Eh, he, he became a, a crazy man. Mm -hmm. But he, when he was young, he was doing great things for Gambia, everybody embraced him. Mm -hmm. But boom, they were map. Afterwards, most people started flocking there and they mak lah. So like I said, when boom mak eh, because of time we are getting to stage behind him. Don't go compromise it, I can't do that. so da gisee gis ne let them have belief ci ndaw yi so trust bi rek moo fa nekkatu because of bu nga ne support ndaw yi waaye trust suñu ndaw yi pour ñu jox leen ay place waaw man sax yaakaar naa loolu nde nde ndaw yi comme ñu dee wax si english dañ am exuberance maanaam dañ am jom ñoom suñ bëggee dara mu xapoon def dee bëgg mu man sax yaakaar naa ne ndaw ñi tam mun nañ ne ñoom mun a jox gaay chance pour ñoom tam ñu mun a ron ko président waaye after loolu dinañ dem si amoon na am na clause boo xam ne comme si youth participation bi am na ñi nga xam ne dinañ ne ten percent boobu noonu loolu is is proportional maanaam euh, soo amee every téeméeri nit fukka ñoo mun a nekk ndaw ndax yow loolu mun na laa doy sax because soo ko soo seetee tam ndaw ñoo ndaw yi ñoo ëppa Gambie fii nii so ndax yow loolu yow doy na la uh, anyway doyul ma nag waaye at least for a start baax na mm-hmm. uh, just comme like ten percent tam nekkul ndaw at least soo out of 100 percent bi 10 say ten bi nga am young people beneen 10 percent bi women beneen 10 percent people with disability am nga balance scale bi so balance scale bi da nga gis ne at the at the end di nga am a very conducive environment all inclusive wa ñepp dinañ participer daal wa hmm. lolu lolu lolu tam lolu amna solo amna solo bu légui euh um, gis nañ né vote bi def nañ ko um, euh mu fa démé ñun ñepp xam nañ umput kenn eh, né dañuy reject eh, draft constitution bi so yow léegi yow lan nga foog ah, yow ndox nga ki nga xam ne yow yaa ngi bokk si process bi léegi ndax dañoo isiwaat draft bi ñu isiwaat ko si parlement bi ñu dibéetaat ko ñu seet yan la ñoo génnee ñu yokk wala mun nañoo still am 1997 constitution bi ñu fi fekkoon ñu change loi yoo xam ne baaxuñ foofu noonu yow lan nga foog si loolu. ok ah, comme ni ko waxee rek 19 ah, di current draft bill bi mun nañoo still push. to an extent ñu engage ay National Assembly toog waxtaale leen look ñu wol na ne wel this is not for you lii nekkul pour yéen rek lii pour dëkk yëpp la ñu toog ñu càmbaraat ko waxtaanaat su nekkee ne gars yi mën nañu ko pousse ak yéen fine su nekkee ne still now gars yi ngi issue duñ ko pare pousse pour pousse pour nga satisfy benn nit parce que draft constitution bi yëpp soo ko xoolee since inception benn la nekk di topp 1997 constitution bi di same thing dañu waxoon ne waaw bu ko saf toog nañ fi ay months amuñ vice président afterwards seen time boobu la gaa dem change certain clauses new appoint vice president why da nga gis ne su nekkee ne like uh, still uh, draft constitution me, is disturbing them but yes still they should remember how much is been invested in the draft constitution exactly so jere téeméer ak uh, fuki fuki million ak jurom ben nga spend ko ci ben téere ak dee rek téere nga jala ko nga taxañaa ko def ko ci mbali bi. waaw loolu dafa ñaw dafa ñaw parce que xaalis boobu noonu soo ko lu bari lo xam ne nako na ko 97 constitution bi su nekkee ne gars yi bañ na ba bañ ñu indi woon 97 constitution bi ñu wax askan bi ne lii moo si bon ñu génne ko si ñoom at day on level si national assembly bi gars yi génne ko amee yu gars yi loo xam ne loolu gars yi bëgg une consultation with the people waaye bu gars yi toog foofu rek ñu ne waaw lii baaxul ñu génne ko ñu dugal lu leen ne so. waaw John um, John um, Amadou John fu mu nekk nii waxtu baa ngi buñ waxtu baa ngi ñu bugg a jaamu because Ah, fu nekk ni ñu ma alat ne ñaari minute rek lañ déssé wa légui man dama bëggoon légui nga wax ñu yow lan ngay advice Gambien lan ngay advice ah, sa sa moromi ndaw ñi ah, si constitution bi si affaire yëpp nañ démé ak naka lañ wara démé ci si kanam ok aku lu wax advice ndaw yi rek moy suma communauté ñu nekk suma partners development ak ñu def nekk di ooyee sa bopp activisme dëgg la nañ continuer di advocate ñu jangal suñu nit yi ko ni ko dooree 2016 waaye gis tane ne bi am na ñoo xam am wañu ci si bugg a ni ko dole 2016 ñu ñëw ñu yëpp nekk ben ndaw yëpp nekk ben so di sem strain bi war na continuer war ñu nekk as a team ñu fight cause bi because of nine eh, constitution bi ci ko ta indi ak in mu dem turu ñu try and ci 1997 constitution bi ga iri brand ko wat ko then ñu eh, continue with that one and the other thing mooy like ndaw eh, yi dama la bugg a explain because of bagi kaya ñu mislead because gars dañ dee wone we are the future leaders we are not the future leaders ñun present leaders lañ and eh, the future leaders waaye su gars yi toogee like like yeen yeen ay future leaders bi rek ñu am dat ko so if at all we don't start now so so waxtu su jotee naka lay fekk ñun màggee nañ ba paré waaw so màggee wax gars ñu doon Amadou wax nga diga wax nga diga askan wi dégg ngeen lu Amadou wax wax na si si ndaw ñi ak liñ nekk di def si si yëfi constitution bi ak lan lan lañ fokk ne ñoom tam muy seen yelleef si constitution bi euh, dafa mel ni nag euh, waxtu bi jaam jaamu nañu euh, mën la seen xarit seen doom Tijaan Ba dinañ ñëwaat nag si yeneen épisode si Ballot's Power Show bi until then have a